qalbi adam munawwiran wa qaadani zawil huda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xanaa jëkkee jiital ci suñuy kàddu rek di sant tey ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak moom mi nga xam ne liggéey bu màgg bii nga xam ne Cheikh Amadou Moukhtar moo ne ci bopp bi ànd ko njabootu sëñ Touba gépp muy téeméeraat yi nga xam ne sëñ Touba ginnaaw bi mu ñibbisee ak tey ñu war ko dundalaat muy wam sa nga xam ne mooy mille trois cent quarante six ren euh, muy liggéey bu rëy bu mag kon ñu yóbbante sunu ziar ak yeesalaat sunu jaayante ci Cheikh Mamadou Mountakha di jottali suñu cant ci njabootu sëñ Touba gépp di ko jaaree ci Cheikh Mamadou Moukhtar euh, kàddu yi nga xam ne dinañ ko ci barkeeloo di turu suñu bokki dongo yëpp day doon kàddu yoo xamante ne euh, ñun dañoo bokk ci alali sëñ Touba kon suñuy évaluer téeméeri at ginnaaw sëriñ bi téeméeri at c'est une très bonne base d'évaluation waaye booy évaluer da ngay daal di gis ne suñ Tuubaa suñu borom jox na ko ndam loo xamante ne wet goo ko xool di ko gis waaye nag nañu jëkk a circonscrire suñu waxtaan ci cadre ngir bañ a euh, désorienter les chercheurs ak les universitaires ndax gëstukat faw yow nga cadre li ngay wax ba mu xam ci ban contexte la fan la tàmbalee ak fan la yam sëñ Touba ci cadre bi ñuy waxee ci moom ci lislaam la lislaam nag nañu xam ne mooy li suñu borom yabaloon suñu maam aadama mu ñëw ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa doon benn liggéey boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee dafa doon xaatimu nabiyin wa imaamul mursalin nga xam ne li tàmbalee ci moom ba fi àdduna yam benn mission la kon sëñ Touba liggéeyam bii ngir xam ko fi ngay dugal liggéeyub abu Aboubacar mu bokk ci biir euh, liggéeyub rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dugal fa liggéey liggéeyub Seydina Omar dugal fa liggéeyub Seydina Ousmane liggéey dugal fa liggéeyub Seydina Alioune loolu mooy dox di dox xar nan fa xar di toppante ba agsi ci loxol Sëñ Tuubaa yàlla suñu borom moom moo koy euh, mooy def liggéey bi ci ay jaamam yoo xamante ne daf leen a gërëm di leen liggéeyloo benn liggéey rek da leen di liggéeyloo wal takkun minkum ummatun yad'una ilal xayri wa ya'muruna bil ma'ruf ndax njubug yàlla faw suñu borom yebal ñoo xam ne dañuy gindi nit ñi kon sëñ tubaa sosul tarixa kon dafa ñëw doon na liggéey boobee nga xam ne moo jóge ci rasulullahi sallallahu alayhi wa ci biir loolu kon contexte bi mooy ñu xam ne ñi wooteel yàlla bari na wa daahiyan ilallahi yi bari na waaye wa daahiyan ilallahi bi iznihi mooy li jafe te moom la sëñ tubaa am ndax xarnu bi nga xamante ne ci la defee liggéeyam bu màgg bii ba mu teroo rek li mu wax leer na nii rabbi bi an usarrex bi na ni malazun wa mafzaun fa man araada al xayra fii kilta yi daaree ni fal yalus bii koo koy sëñ Tuba suñu borom moo ko digal mu woote ngir wane wéerukaay la làqukaay la ci képp ku bëgg a mucc àdduna ak alaaxira muy liggéey bu màgg nag boo xamante ne kon dafa dugg ci ndigal benn woote bu ñu mës dégg sëñ Tuba woote ko buy nuru wàllu tarixa mësta sëñ Tuubaa sosul tarixa kon ku bëgg analyser mbirum sëriñ bi wala nga évaluer liggéeyam soo ko jëlee ci approche boobu da ngay réer nañ jëllu si waat ci lislaam ji nga xam ne moo tegi woon ci loxoom moom dafa wax ne man day sosuma tarixa dama fekk yoon wi yonent bi àndoon ak saxaaba jaar ci mu xaw a far gay ma gajj gajj bi buub ñax mi defaraat ko ba mu leer nañ wax ne ku bëgg dem na ñëw yoon waa ngi kon sëñ tubaa dafa fekk ci monde boo xam ne tey jii dafa soxlawoo sëñ tubaa boo gisee nit ñi xamatuñu fuñ jëm xamuñu fuñ teg seen tànk waaye sëñ tubaa def na ab liggéey boo xamante ne tey jii fii ba ba àddunay tukki téeméeri at yu ne boo ko nattee di nga gis ne leneen lu dul sëriñ bi ni mbirum sëriñ bi di jëmee kanam du du ko nuru mukk ci àdduna ndax li koy waral mooy yàlla suñu borom mooy taxawu sëriñ bi mooy dimbali sëriñ bi mooy yëkkati mbirum sëriñ bi ndax daf koo liggéeyloo ba mu jàll liggéey bi mu am ci ndam ban liggéey la euh, sëñ Tuubaa ci boppam bi xarnu bi teeroo dafa wax ne awalu mabtada bil xadimu taalluqun bi man law taqdimu wa adhara alxidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi munsalixan fii jaysasi min xayri rabbil wara xadimu uzni xayri wa adxalal illahu fi qulubi man tasababoo fi naqli yi zaaka zaman ixraajuhu ilal bilaadi naaiya wa naa la fiiha fawqa sam'i saariya muy tënk boo xamante ne wane na ne li mu defoon ci mille trois cent treize muy mille huit cent quatre vingt quinze muy tukkeem bu màgg bi nga xam ne daf ko jaayanteeg suñu borom jaayante ko yonent bi salaa salaam moom ëmboon na ko ci xolam ci mille cent mooy bi xarnu bi teroo kon ku ñu yónni la moo tax ñu moo tax mu lay indil xarnu bi ndax yàlla suñu borom day yabal. ñoo xam ne dañuy yeesal lislaam ci xarnu jël benn xarnu euh, bi Serigne Touba jëlee diggante assasine ba jëy sasin muy fukki at ñaar foofu yeesal na fi lépp loo xam ne mbaax la muy valeur boo xam ne ñu baax ñi jëfoon nañ ko ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi sëñ yar ci lu jiitu muy dem ci géej gi yare na leen noo xamante ne ku leen xool sa xel dem ci ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaroon kon kubaraaw yi nga xamante ne muy nit ñu màgg ñu sampoon l'islam yaatal ko def futuhaat yi àggale ko fu ne boo xoolee ñi sëñ Tuubaa yaroon lépp di ko gis waaye nag dafa desoon beneen liggéey boo xam ne mooy liggéey bi gën màgg te sëñ Tuubaa koo def te liggéey la boo xamante ne mooy wane ne yàlla suñu borom nekkate ku mu mës a xeexloo it sa ngor lay natt waaye soxlawul ko ko xeexal ku mu mës a laaj ngànnaay ngir ngay ubbi lislaam nekkate suñu borom moom tuurloowul kenn deret ndax soxlawu ko dafa bëgg rek ñu wéetal ko te suñ ko wéetalee su la dimbalee ndimbal loolu jaam ñëpp xaj nañ ci loolu mission sëñ tubaa mooy résumé loolu moo koy wane sëñ Touba bi muy dem mayoon nañ ko fukk yu mu mën a àndal waaye àndut ak kenn sëñ Touba diggante jëy sa Chine ba won sa Chine fanweeri at laak ñett yoo xamante ne lépp privation la dañ koy xañ lépp lépp persécution la maanaam lépp luy tax luy mettital luy faat bakkan seq nañ ko ak sëñ Tuubaa jéem nañ lu ne waaye mënuñu koo rey ndax moom la mu waxoon ak suñu borom daf ko ne ruu gi sàkkuma ko bay xam lu muy attan ak lu mu dul attan waaye ak luñ ma mën a yenn yenn bu ko ruu gi sama jom dékku na kon suñu borom téye ruu gi sëñ tubaa dem min ami jëy sa ila xaami wam sa sin liggéey bàngoo fanweeri at ñett yoo xamante ne loo ci jël dina feeñal ngëm loo ci jël dina feeñal wéetal yàlla loo ci jël dina feeñal euh, li ñuy tuddee jihaadu nafs loo ci jël na feeñal tamit jox yàlla àqam loo ci jël dina feeñal liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jël sa dund gépp jox ko yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi ñoom nag yàlla wan ko ne ko ah, sa dund gépp nekkal nga ma na nga xam ne bis bu ñu la noppee gisit maa la fi nekka moo tax sëñ Tuubaa ku ko woo yàlla suñu borom moo lay wuyu kon évaluer liggéeyu sëñ Tuubaa la dimension économique dafay tuuti dama koy jox deux pour cent la dimension spirituelle mu ëpp doole ndax moom daf ñoo bàyyee héritage boo xamante ne yaakaar naa ne gëm yàlla war naa yomb léegi yaakaar naa ne wéetal yàlla war naa mën a yomb léegi yaakaar naa ne jox yàlla ak xam war naa mën a yomb donte sax ab jaam lott na ci waaye dongo yi war nañoo nangu dem ci ba jeex waratuñoo nangu euh, ñu ñuy soppi ba dootuñu xam suñu bopp waratuñoo nangu ñu ñuy jënd ba ñu jaay suñu ngor ndax sëñ tubaa defal nañu loo xam ne mënatuñ ko koo fay waaye nag xanaa kon nag ñu gore kon loolu mooy li may jëkk a ubbee bëgg leen leeral nag neeroon naa leen ne sëñ Tuubaa yorul tarixa ma ne sëñ Tuubaa yorul tarixa preuve bi ma leen ci wax mooy nee naa leen da koy delloo siwaat ci lislaam min la dun aadama ilaa yawmina haza mboolem yonent boo mës a gis mu ñëw ñu yónni ko boole kook ay noonu lañu dajoon li tax liggéeyu sëñ Tuubaa metti mooy moom dafa donn mission wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon koo xam ne wootewul benn cër bu dul haddullahi wa xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xadim joojee nag moo tax ñu teg ko yanu ñi ko jiitu woon ñëpp mu dugg nag ci biir mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ay xar baaxam sëñ Tuubaa léppam xawaariq la ajaayib la ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wa min xawaariqi nabil mufaddali alayhi taslima al alil mufaddili kawnu sini tagarrubi mustaxraja min zamanin mada mazaya muxraja xad subbihat bi maa mina rusli jara ila lazina kulluhum xad fajara alayhim salaatu wasalaamu kaman tabat kaman tafat bi baxsihim zalaamu kookoy Sëñ Tuubaa buñ lay wax liñ ko yan ci ay nattu doonul lu ñu mën a xam doonul lu ñu mën a attan waaye dinañ xam ne képp ku mës a yàlla képp ku mës liggéey liggéeyal rasulullah sallallahu fa nga jaaroon ak say noon dajale nañu lépp teg ko xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax moom héritage lislaam la la don lislaam moom ñëpp a ngi ci biir suñu maam Adama a ngi ci biir yonent yàlla Daawuda ngi ci biir yonent yàlla Suleymaan a ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir loolooy loolooy liggéeyub sëñ Tuubaa tey nag bi sëñ tubaa demee def ci liggéey boobu min ama jëy sasin ela ami wam sasin mais xoolal jëy sasin fan la ko tàmbalee fañ tàmbali woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yusbituuka aw yuqtu aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka moom lañ tàmbalee ak moom nga xam ne kon fañ jaaroon ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ne la ñu jaar yow moo tax génn gi génn gi la ñu eh, def ndax borom loolu moom mooy dogalam bi waaye ba mu génnee ak fam jaar fépp ba ba muy ñibbi ba muy ba muy dem gànnaar ba ba muy dem Ceyeen ba ba muy ñëw Njaareem lépp ba liggéey bi mat lan la ko tëjee muy fanweeri at ak ñett yi mu ne akramani al ilmu maal amali as-saalihaati saxali kamaali loolu mooy al yawma akmaltu lakum diinakum xasida googu bi ko sëñ Tuubaa bindee diir bu gàtt la fi la la la ci teg ñibbi si Tuubaa kon. ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon ma yawma akmaltu lakum ko ak la ca topp ci ngërëm lu ko suñu boroom defal looloo topp ci loolu loolu moom moo topp liggéey liggéeykatam bu màgg bii di Seexuna Ahmadul Xadim moo tax mbiram téeméeri ak ginnaaw bi premier centenaire bi ñu jëkk évaluer tey jii boo koy xool ci euh, wet yépp da ngay gis li tableau bi reluisant yi ni mu rafetee ñi mu lay wanee nekkate nekkate xeex taxut a taxut a gañab xare de nekkate pexeel doomu aadama ak di ko xañ euh, ak xam te taxu taxut am ndam de nekkate tooñ taxuta mucc de nekk fayu tooñ it amul njëriñ de nekkate noonoo ci biir nit ñi mayewul dara de nekk ay pexe it mayewul dara lii maye dara mooy da ngay yàlla yàlla suñu borom képp ku mu ne inna laa ku mu waxloo ne la inna laa maanaa te muy dëgg bu la nit ñi songee dinañ xam ne ku yàlla àndal moom dee ko song di ko di ko fexel wallahu yansuru nii wal xalqu tadbahu nii fil barri wal baxari zanafin bi laa dara nu ñuy gën a dem nit ñi dinañ gis ne nekkati sëñ Tuubaa mii moo ne ci li rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëggoon sëñ Tuubaa mii nekkati moom nekku fi pour maasale ay tarixa nekk sëñ tubaa mii xàmmeewul ki ki ñëw jox ko boppam ak ki nekk feneen te ñëwul sax gis ko mu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal yokkute ak di ko ñaanal mucc ni mu koy ñaanale ab taalibeem koo koy sëñ Tuubaa kooku faw fi ñu toll ne adduna bi dañ koo soxla ci monde boo xamante ne kenn ku ne mi ngi xoolee bët moromam maa la ëppale maa la raw sëñ tubaab jàkkaarloog dongo yi ko aju ci moom ne leen bu leen noonoo mukk ku ngeen di gis muy wax laa ilaha illallah baatub laa ilaha illallah rek ku koy wax bu leen xamante sikkam bu leen ko lijjanti bu leen ko noonoo kooku moo mën a dajale kooku moo mën a boole kooku moo xam xàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñi ay taalibeem kon ñu ñoo am aw sas ñoo ko war a liggéeyal loolu kon mooy eh, li may li may li may li may tëjee di wane na nag eh, sëñ Tuubaa eh, yàlla fay na ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fay na ko te li ko fayee mooy pérennité lañ ko may pérennité mooy koo xam ne nu ñu gën a dem mbiram di gën a yëkkatu abqaani yallaahu lil muxtaari mu'jizatan kama bihi li sama fawqal buraaxi sara ni mu fabee woon fabee woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam teg ko ci kaw alburaax jëmee ko asamaan nee na noonu la garantir sa pérennité kookoy Sëñ Tuubaa kooku ku ñuy yaakaar la ku ñuy liggéeyal la du sax ku ñuy xulool ndax képp koo xam ne da ngay wax ci Sëñ Tuubaa loo warta wax xetam moo la bañ xeen rek yàlla yàlla yàlla yàlla dimbaliwu la wa ilaa nga umpale ko waaye Sëñ Tuubaa za nafhin bi laa dara njëriñ lu àndul kon évaluation bi moom wet goo ko xool gis ko Touba bokk na ci tableau bi boo xoolee Touba xam ne sëñ Touba amul morom boo xoolee taalibe yi les valeurs de travail avec les fonds pionniers d'abord dëkk yi ñu sanc ak ni ñu yaatalee liggéey ba ci ay kilifa yi nga xam ne dañ leen doon jox ay médailles euh, administration coloniale sax di ko jox ay murit ngir ni ñu yëkkatee l'économie à travers l' agriculture loolu ak leneen ak leneen tey jii boo ko xoolee xam ne euh, sëñ Tuba lépp ay mayam boo ko xoolee ci alquran ni mu dëkk see ak sëñ Tuba tey jii ci concours yi nekk ci monde bi yëpp ci wàllu alquran waa tubaa ngay dégg ñu bare loolu te gisaguñ dara ndax ni ñu ni ñu war a xamee loolu sax war a concentré wu xamaat suñu bopp bu buñ ko gënee def la ñuy raafale lépp ndax alquran mu dëkk si ak sëriñ bi. boo ko seetee ci xadis yi tey jii euh, werante demoon na ba àgg coow goo xam ne coow loo xamante ne ci àdduna bi ñu bokk lislaam di noonoo di werante te dara waralu ko lu dul naan wuute nañ ci nangam ci ci ci ci fiq wala wuute nañ nangam ci fànn sangam déedéet ñun Sëñ Tuubaa nee nañu képp kuy wax laa ilaha illallah boole leen ko seen bopp ta xam ne nag ci sunu xol Sëñ Tuubaa mi am kenn am fukki ñaar yi sëñ Touba nekk diggante Mbacke Kajoor tàmbale ko ab liggéeyam ñëw ba tuubaa juróom-ñaari at Touba muy fukki at ak ñaar ci au forme na fi ay kilifa yoo xamante ne def na ci ñoom lu tax boo leen xoolee sa xel dem ci ñi rasulullah sallallahu alayhi wasallam formé woon loolu day feeñ ci xam-xam feeñ ci wàllu yar feeñ ci nangoo liggéey feeñ ci mën a defar doomu aadama ndax daanaka da nga naan ñi mu seexal ñëpp diggante boobu la euh, gis nga loolu sëñ Tuubaa def ba noppi dooru wiiti ji ak boromam defi liggéey bi gën a jafe nag ndax liggéey bi mu gën a jafe mooy lan lan moo ko tax a dem ci géej gi sababu xaybatiya an allaha araada an anaala min ujaaha wa an akoona shaafian li qawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi looloo gën a jafe rambu rambu doomu aadama ñu yor la ci bàmmeel sëñ Tuubaa teeru la dox sa digg ak ñi lay laaj te loolu du jaas looloo gën a jafe moo tax bi mu fukki at a ñaar yooyu jàngal na ci murid yi loo xamante ne bi mu leen wanee ginnaaw boobu temps ay xale ay ndaw sax dañuy assumer seen responsabilité borom borom gaawaan bi mu koy jox Daaru Salaam 17 ans la am 17 ans ñu jox la dëkk ak 99 borom laxasaay yoo xam ne yow la ñu déglu sa ndigal te doo ci réeral kenn. kooku xam na lu muy def du dëgg lan lay firi loolu ça veut ndaw ñi tey jii ko am 17 ans yow duñ la duñu gëm ne danga war a assumer ses responsabilités pourtant loolu sëñ Tuubaa def moom la donne ci Yonent bi sa alayhi wasallam xare Uhud kan la jiiteloo jox jël drapeau bi jox ko ko nu mu tudd Musab ibn Umayr Musab ibn Umayr xale la woon te ñooñu. dañ leen war a indiwaat wane ne modèle yaa ngoo mais yooyu la sëñ Touba créé waat Musab ibn Umayr dafa nekkoon makk ay waajuram am alal ju bari di ko woo ci loolu moom mu wan ginnaaw loolu dem ànd ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di soli sagar ndeyam di fey ay nit alal pour ñu dem jàppe ji Musab di ko indil moom it fu ñu ko jàppee mu delluwaat wane na gëm na te du dellu ginnaaw teel a mokkal alxuraan lool Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yebal ko Madinatu Munawwara ngir mu jàngale alxuraan. ba bii Rasulullah sallam di ñëw Madinatu Munawwara bokk na ci ñu ko gàttandu xareb Uhud moo yoroon drapeau bi ti ndaw nga xool kon message bi ñu war a wax ak ndaw ñi parce que développement c'est d'abord la jeunesse tey jii boo amee boo amee benn jeunesse boo xam ne xamul boppam la perte de repaire ndax yàlla boo xamee sa bopp rek xam yàlla suñu borom man xarafa nafsoo xarafa rabbu loolu du mën a ñàkk kon xam sa bopp nag culture dafa nekk au centre ndax tubaab bi li mu def mooy dafa fexe ba bi colonisation jeexee it mu bàyyi fi une politique d'assimilation culturelle boo xamante ne lan la mooy lan à travers les programmes d'enseignement de l'école ñu fexe ba ñu ñu doon étranger à nous-mêmes war nañu mën a maîtriser les sciences et la technologie mais tout tout tout en étant nous-mêmes tout en étant ancré dans nos valeurs xam suñu bopp loolu moom mooy mooy développement développement moom da ngay xam sa bopp ba noppi. nit ki li mu indi ah nga xool li nga xamante ne da ngeen koy bokk nga jox ko mu jox la mais dans la respect réciproque mais soo xamul sa bopp yow mën nga dem ba àgg foo xamante ne loo def dañ koy jéggaane loolu mooy problème moo tax li nga wax sëñ Tuubaa moom dafa doon na yonent bi saa sallam ci anam yëpp soo xoolee ci architecture yoonu murid wala nga xool tamit dans les valeurs de travail nii ñuy ni ni ñuy exceller mais loolu l'islam noonu la mës sa def Pastef moo yemul ak dara xoolal âge d'or de l'islam mais tey jii même les mathématiques Europe mais mi ngi ko jàngee ci l'islam médecine l'islam moo ko influencé donc boo koy taxaw di xoolaat danga nga naan ñun ñëw jéggaane ji dara dafa am nag rasulullah sallallahu alayhi wasallam lu mu waxoon jullit ñi nee na leen lenn rek laa ragal ci sama ginnaaw ci yéen xëccoo nguur ak xëccoo daraja yooyu moom bu amee yàlla suñu borom moom lu leer la wax naa la nansur rusuluna wallazina amanu waaye nag bu nee dinaa dimbali yonent bi dinaa dimbali jullit ñi ah jullit seen ngëm la wax dañ koy téye mais ngëm gi suñ demee ba mu woyof ñu dem bay roy koo xamante ne du jullit ah di ko ñee yàlla suñu borom day téye ndimbalam loolu mooy jafe-jafe bi nga xam ne mooy tax ngay gis ay jullit ñeneen di leen du dominer waaw ndax yàlla moo waxoon ne walan yajhalallahu lil kafirina alal muminina la te walan lan xarafu dàq la bu yàlla dàqee dara du ñëwaat pourquoi mu ne du ma bàyyi mukk je ne laisserai jamais de préséance ah aux infidèles sur les croyants mais il faut que nous soyons croyants d'abord donc wax ji mooy nañ xolaat suñu bopp rek Sëñ Tuubaa lim ñu bàyyee wërsëg moo ci gën a tuuti ngëm moo ci ëpp doole ak njub moo ci ëpp doole loolu buñ ci góorgóorloo li ci des day ñëw moo tax sëñ saali bu Mbacke bu baax ma daan tënk ñaari baat nee na yàlla suñu borom jàmm bu ne taqale na ko ñaari biir benn biir bi mooy sa biiru jëmm nee na bu mu la yitteel yàlla bi la booleek moom warlul na la lu mu ci def sa biir bàmmeel nay sa yitte ndax loo fa deful doo ko fa fekk noonu la sëñ Tuubaa doon yàlla mais bëgg concentré wu ci développement dans le sens contemporain du terme alors que développement da daan gis euh, ñi nga xam ne dañuy liggéey ba am alal ju jeex attan koo joxe ci benn bis ñu war laa former ci lantanaa lu bir xattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun loo am mun koo joxe kooku buñ la ciy forme duñ la définir le développement nga jàppee ko ne euh, c'est des bien matériel euh, suñ bay jaxate li mu wax naan fii jant bi fenk ak fa muy xel a soowee yilif ko ak laxasu yalwaani laa yamale loolu mooy muridisme da ngay am lépp mais sëriñ bi gënal la lépp nga xam ne àdduna kon ak li ci biiram mën naa tege ci say loxo waaye sa xol moom salon lay doon boo xam ne sëñ da nga koy waajal ba mu set ba mu sell sëñ sëñ Bàmba rek koy moom lii dal laa gis euh, fii ñu toll nag bu ñu bëggee ñëpp ñeeñu nañu gisee développement ci sens bi mooy nañu développer suñu ay jikko développer suñu ay valeurs am le sens du sacrifice xam ne it yàlla sa lislaam bu bu bu bu woyefee bu woyefee rek àdduna dalay jekko foog nga foog nga fonk sa diine ba noppi wëlbati ko fonk sa taalibe taalibe gi moom culture bi sax mi ngi ci biir taalibe gi moom parce tey jii. ñun lislaam boo ko jàng itam am na fooy fooy naanee boo waree naan am na naanukaay sëñ tubaa mooy suñ naanukaay keneen mën na beneen naanukaay l'islam noonu la yaatoo mais culture moom dangay ngay fonkaale sa bopp kon lii daal laa gis ne euh, téeméeri at ginnaaw bi nañu nattaat suñu bopp jeunesse bi it nañu bàyyi xel ne ah euh, sëñ sëñ sëñ Modou Moustapha bi ku baax ki sëñ Tuubaa di dem di ko fi bàyyi moog sëñ Mouhamadou Fadal na nga xam ne ñoom ñoo topp ci ginnaaw sëñ Thierno Birahim toppin bu rafet yar boobu ak nangu googu ak rafetu doxin woowu loolu nañ koy waxtaanewaat ndax seeni at sorewul lool cette jeunesse moom lañu war a xool at admirer ko ndax ñun loo wax ñu naan gone yi gone yi gone yi gone yi te ko alu tey jii ñi sañcoon lislaam moise mu jabel li mu dund lépp fanweeri at ak ñett la te lu ne ci xadis yi na ci jullit ñi ngir wan leen kan mooy xamal la mooy rasulullah sa kon defe naa ñun am nañu lu doy sëkk patrimoine nañ ko téye nag yëkkati ko ci kaw bu mu laal suuf de lii daal mooy liggéey bi waaw projet de société wu sëñ bi euh, li tax dafa wul sax ak baatu projet de société bii ñuy wax nii dans le sens idéologique du terme parce que projet de société ñiy làmbatu ñooy taxaw di wër di seet fan la ñuy jeexee projet de société waaye sëñ Tuubaa moom ni yonent bi saa salaam def la def àdduna ak la boole xam addu qui peut le plus peut le moins àllaaxira bu fa demee dootuñu fa jóg dëgg la de sëñ Tuubaa la boo la góorgóorloo bu mu lay duyal sa ndabu àllaaxira ndax mënta yàlla du duy ndab lu feesul du duy ndab lu tuuruwut liy tuuru rek mën naa yor sa àdduna bi wala tan sa la la wax wala tan sa nasiibaka mina dunya nga koy def projet bële moo am projet àdduna moom xool jafewut xam nga dafa jafewut parce que li tax mooy daf la warut tax a jóg dañ la xamal ne da fi romb kon fi la tax a jóg moom mooy projet bi li ci des it ma dolli ci gis nga euh, nit ngëm mooy defar nit ngëm mooy defar nit te ngëm boo xoolee ak njub boo ko defee ci nit ba noppi addunaam moom taxatul ñuy wax ndax ñaar moo fi ne ci àdduna di wut dara wala bëgg mucc ci dara liggéey wut nee na fa kullu maa tuhibbuunahu fatlubuuhu fi fi taati yi na ne wutee ko ci topp yàlla loolu di ci jot tax defe naa sëñ Touba tey jii sëñ mun taxaa lu xew Sénégal sax ci jafe-jafe mooy jëkk a cent million wala cinquante millions wala deux cent millions joxe ko waaye kenn mu musta ubbi gis ab boutique ne sëñ taxaa fii lay yaxantoo wala gis banque boo xam ne dañ naan business modèle sëñ Mountakha mi ngi nii newul foofu de ci sëñ Touba la ci sëñ sëñ Touba muy benn sëñ Touba bi mu fi nekkee njaareem bu dara manqué suukar bu manqué xam ni ñu koy xamee dañ koy jal kër gu mag te donga yi lu manqué dañ koy wuti yi ñëw jox sëñ Tuubaa kon waman farra illaa ridahu farra ilay ku la maa yardaahu loolu mooy wax ji kon développement nañ góorgóorlu ci éducation te éducation ñu bañ koo jaawale ak mën ngaa jeexal téere yi te taxul mu bari solo ndax mbaam mbaam mën naa sa téere waaye jëriñoo téere yi nag mooy dañ lay yar te buñ lay yar nag li ci jiitu te gaa yi duñ ko waxtaane mooy soobu da ngay soobu am kilifa gu mët kilifa wan ginnaaw àdduna wuti wuti wutali ngërëmal suñu borom loolu mooy yoon wi sëñ Tuubaa sos gis nga seexul xaddim daan na jël sëñ mu Moustapha ak sëñ Mamadou faadal tëj leen fi barab wax benn waxtu lay ñëw ci bis bi bu ñëwee am tibbub cere da leen di loo rek ci alxuraan ak diine bu waxtu bi ñëwee mu ñëw tibbub cere ak kubéeru satala ndox jox la ko bu tëjaatee moo xob bi de waxtu bi ñëwaat ci ëllëg sa te mooy seen wayjur kon yëf yi du caaginu ne da ngay sériir sa doom taf ko ci sa wet pour jëriñ ko bàyyil xel ëllëg faw mu nangoo sonn fii ngir jëriñu ëllëg kon defe naa Euh, man damay insisté waat ci li Sénégal manqué zircon pétrole euh, gaz or yooyu yëpp bu ma ko doon xool li mu représenté par rapport ak richesse su Sénégal dama naan zéro virgule zéro zéro zéro zéro zéro pour cent laa koy jox moom pétrole bi ñu coow ak zircon bi yëpp loolu laa leen jox ne leen zéro virgule nangam boobu nag dama ko maslaawee ak adduna waaye quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre pour cent yëpp jàng jàng jàng doxin wi ñu sëñ Tuubaa bàyyee moom laa koy tuddee ndax wala tan sa nasiib bi mi la duniyee moo tax ma wax lële mais ku yemoon ci sëñ Tuubaa sax doo torox kon defe naa nañu nañu wax nit ñi lii dëgg jublu sëriñ bi waxuma nag jublu goo xamante ne day doon ci waxi kese ndax sëriñ bi nee na sëñ Muntaxa nee na yoon wi fi mu agsi gëm Serigne Touba ak bëgg Serigne Touba moo ko fi àggale waaye xamuñu ko dunduñu ko mais c'est message il faut décrypter ce message léegi liggéey baa ngi noonu moo tege ci taabalu kilifa yëpp tege ci taabalu dongo yëpp du ko ñu mën a xam waaye nañ ko jéem a xam ndax boo ko jéemee rek rawee ko ki ko jéemut kon nag man sañuma jeexale lu dul ci wax ne jër jëfe jërëjëfe Cheikhna Ahmad al Khadim jërëjëfe Sëñ Tuubaa نبينا بقوله فوق البشر والجن والناس